soppe Serigne Babacar la borom VIP li ma fi wut dafa alaaji est-ce que li ma nañ cee dellu si waat première dame def na fi interview de. waaw wax na fi. waaw moom moom moom alaaji moom li ma jaaxal ci interview bi ca naturel ga déedéet waaw man li ma jaaxal man ci interview bi xam nga mooy lan waaw mm. mooy moom dafa def interview am benn côté boo xam ne dafa am lu mu doon naqarloo. mooy ñiy utiliser ay compte Facebook ak mm-hmm. Twitter ak yooyu. waaw ak di yónnee ay nit WhatsApp. na mm-hmm. na naan leen man maay Marème fay di lekk xaalisu ñooñu. Mm-hmm. alaaji interview ba mu daanoo. waaw alaaji ci ëllëg sa ñu defaat ko ko. defaat nañ ko. non parce que faale parce que. sensibilisation la def pour wax ak wax nit ñi ñi ñi koy dóor. alaaji waaw mais mu pare. ah ñu xëy. Ah, def ko ko. mais parce que xam na ni itam alaaji ñi koy dóor ci la ñuy dund. waxam ah, déedéet nit ñi dund. ah tam alaaji du raison nag. ah ku nangu ñu nax la. ci ah, wax na ba noppi. wax dëgg yàlla ñan cay dóor nag te day ma wax. déet déet defal ndànk alaaji alaaji dañ naan waaw dañ naan ndaanaan buy daanu bu keroogee cuune lay ne déglul ma expliqué la alaa gis nga tànk tafuwuñ la alaaj tànk tafuwuñ tànk tafuwuñ waaw doo mës gëm ne doomu aadama yàlla may na ko xarañte wu jël loxoom mhm. dugal ko yow si sa poos hmm. waaw alaaj yow loolu mënoo ko gëm ah eh, daf nañu ma ñaari yoon téléphone di non defal ndànk maanaam bu la hmm. dalul alaaj bu la dalul <laughs> doo ko mën a gëm alaaj man fa xam nga man fàttaliku ma man fu ñu ma tafoo mhm. maanaam ma dox dugg ci car rapide wala njaganjaay wala di dox biir ndakaaru mhm. ñu ne ma tipit mu leer ma ne man bi ma génnee sama oto. Mhm. wala bi may dugg ci car bi. Mhm. man samay bagage mi ngi nii sama portefeuille mi nii sama poche. waaye man leer na ma ne fii lañ ko ni coppite. Mhm. léegi nag yooyu bu la dalulee. alaa jaw doo mën a gëm ne. maanaam lii am na ci mim réew maanaam imaginer nit ak ni ko yàlla bindeek chaleur bi na ci moom. mu jël alaaji loxoom. wallaahi. wallaahi est-ce que xam nga am na ñoo xam ne fan la ñuy fekk seen un million yi. xam nga fan lañ koy fekk. seen poche su dënn. ñu ne trois pièces lañ soloon fii laa ko dugal fii mais bi ma wàccee bi ma ni ñun mépp loxo ba dafa sar xotti doon ko yàgg. loolu loolu sama papa laa ko jëkk gis. yàgg na booba. yàgg na mais alaaji. mais alaaji dafa jiitaloon bu benn ci biir. wa wa tegaat ci xaftaan. waaw mais loolu nan lay mën a demee. Ah. yow bu la dalul alaaji da nga naan. xotti ko. xottiwaat bi fukki junni du léegi boobu yàgg naa. léegi fukki junni fukki ne paa yi dañ ci daan am terrain nga naan ba ba ba ah, jënd ci ba jënd ci ciment. Ah, waaw <laughs> waaw waaw waaw léegi nag loolu nag alaaj bula la dalulee <laughs> euh, imaginez yow nit ku xëy alaaj yónnee la message. wallaay ne la yàlla dogal na ne démb yaa bindoon première dame. doon wax ne sa papa dafa cancer. <laughs> Euh, ah, yàlla dogal na. ñu daal moom foofu la concentré nañu dimbal rek. déglu déglu rek bu ko defee nga ne nga ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñëw na pourtant man nag dama doon bind bind lu noonu rek. Oh, xam nga ma la. waaw mm, ko defee daal gis nañ ko euh, commentaire yi bi ma ko liiree sama yaram sax dafa mujj daw. waaye nga ne koy madame yow yow la kan. ah man la madame Mbengue. <laughs> man maay assistante am bi. ñu ne gars yow de sa tur yow wër na àdduna. mbubboo ba yaay yaay seeg meeru Tiwaawan bi. mbubboo madame Mbengue waaw waaw man la man la man la. dégg naa dégg naa Ahmed Aidara la tudd. waay waay dégg waay waay waay waay ndeysaan. ah waay yàlla ñëw na. Ahmed Aidara dégg naa waaw waaw waaw. am na ci wàllu de. dégg <laughs> seen ma ci de. te néew ma ci de. alaaj alaaj déglu si léegi. dégg naa alaaj ni alaaj imagineel ma xarañte googu. wallaahi. waaye xanaa xamoo Adja. wax imaginer ma loolu. yow Adja wax na lu am solo. waay waay waay déglu rek Adja waxul dara déglu rek si li la rek. man ay ku ñaan dimbal lu lay laaj da ngay joxe. déglu rek. xaaral tuuti rek Mantoulaye xaaral tuuti rek yow El Hadj Fone. waaw lii nii lan la. nee na ci kaw. nee na kuy daanu nee na kuy daanu. cuune ngay doon. te jour ba. waaw booy daanu. cuune ngay doon. <laughs> yooyu yëpp yow xamoo sax. bu la gars yi wooyee ci 33 800 nangam sangam. Mm. waaw waaw <laughs> daf lay woon ci fixe na. xoolal bu dee nandite nga xam ne palais ba 880 la ñu ne la bii mooy sama bureau annexe xam nga servir le Sénégal dañoo am ay annexe au niveau de. Colobane <laughs> au niveau de Colobane. <laughs> d'ailleurs suñu médecin sax d'ailleurs fa la ñu ne xam nga docteur Ba. médecin personnel première dame bi nga ne ko ah dégg naa turam nag te effectivement dégg nga turam. wax dëgg yàlla. yow ak alaaj alaaj gars yi mais mais remplir nga yëpp. lépp la remplir ba bind. mais il faut nga dajale dossiers yi nga am jotoon a am fan yi nga doon defee chimie chimie ak paa bi yëpp yi paa bi doon defee chimie yoo dajale ko yëpp parce que day demaas day demaale. am nañ ko te nga jëndaale timbre. waaw timbre yi nag bu dee dafa nar a compliqué ak Covid bi nii xam nga.

<laughs> madame Fall. nga dégg ab voix féminine alaaji bu wuyu ci suuf. ne la wéy madame Mbengue nga ça va. <laughs> sa xel gën a dal. à propos des passeports diplomatiques la ñoom seen timbre yi ñaata la. maladie. pour maladie timbre yi waaw. Ah. xam nga passeport diplomatique. maladie non non troisième âge la. il faut que moom timbre. <laughs> nga ne ko quatre cent mille timbre passeport diplomatique. loolu lan la amee timbre mu ne ko déedéet pour troisième âge la et puis la. nga ne ko non non c'est la moitié c'est deux cent mille. ñooñu moom moom dimbal la. Ah. nee na ah ok <laughs> waaw d'accord d'accord yow kii madame Sarr merci merci. mu ne la merci madame Dieng vous me saluez la première dame s'il vous plaît. te kon alaaji maa ngi la may ah. libre de. kooku tamit de moo dàq dóor ñëpp. ñoo ko yëgoo keneen équipe la. ay man Mantoulaye mii mii réew foo ci ne. équipe la yow tamit. waaw deuxième bi laa wax moo raw ñëpp. mu yow. moom moo gën a dégg daaj sax ku njëkk ka ñu ñoo mën a dóor soppe sëriñ Babacar la borom bi ay bi bi boolu moo bëgg sëriñ Saliou bëgg naa ku bëgg ay mbokkam